mu signé ko euh, li ñu koy euh, reproché mooy dafa jaay ay mm-hmm. baux ci ancien aéroport international mm-hmm. euh, bu Léopold Sédar Senghor bu ñu fi wax wàllu suuf tam maa nga doon wax ne la am na ci ancien ministre boo xam ne mm-hmm. nekkoon na ci président kenn ki du ministre waaye businessman la am keneen itam koo xam ne beneen homme d'affaires la bu mel ne moom am na ñoom ñoo ko tuddee homme d'affaires xam nga parfois dangay nekk dóorkat comme man tuddee sa bopp femme d'affaires loolu mën naa nekk mën nga nekk homme d'affaires boo xam tam business moo tax ngay kii nga nga nga nga nekk ci li nga nekk comme que nag léegi yéen yéen a ne da ngeen bëgg lépp leer. jub jubal jubal te ñuy fàttali nag euh, euh, Pa Ousmane. Mhm. lii bu kenn ñëw fii naan mbirum politique la wala wàllu acharnement la ki nga xam ne moom moo porté plainte muy euh, Zakaria Sow moomu le mhm. nekkul ci état nekkul ci Jomaay nekkul ci Sonko nit la koo xam ne business boppam la yore. Mhm. donc moom ak Euh, Doro ñoo am problème contact direct la. Mhm. ñoom la ñu signé ñoo ko signé ça n'a rien à voir ak problème euh, politique ça n'a rien à voir ak loo xam ne ay acharnement la ak yooyu. d'après Libération mhm. nee na dina joxe dafa yomb nag bu joxe cinq cent noonu. Mm. loolu dafa yomb. li ñu bul bul ko reetaan non je très sérieuse <laughs> dafa yomb déedéet gis nga nag kaay ma wax la mënoo bëgg akara te doo doo doo doo ñeme kaane mënoon na da nga soxla justice gis nga fii tant que ay compromis euh, mi ngi am ah ay waa jàpp nañ la kaay ma dugal lii ma joxe lii déedéet dafa am lu mu war a leeral mu génne lépp xam nga waxuma mu génne mais na ko génne yëfu xaalisu jàmbur la mais kii nga kon kee mën na ci sow mën na ci am problème nabu mhm. yaa ngi reetaan mais sow mën na ci am xam nga lu tax dafa am ay partenaire mhm. yoo xam ne ñoom la séqal business d'accord pour lan ñu jël suuf si jaay ko gis nga gis nga lii nii mu ñu jàpp doo nii dañ ci dégg ñenn ñu nekkoon domaine dañ ci dégg mm. ñeneen ak ñeneen dañ ci dégg mm. keneen koo xam moo gën a rëy làmmiñ fii ci Sénégal ku wax mu tëj ubbi gémmiñam di di rëy tey dégg naa ko sax mu naan dialogue beeg yooyu yooyu te moom ca la bokk kon léegi il sa permet di toog ne ñoom ñoo moom dañoo foog ñoo moomoon dëkk bi dëkk kon yow da nga jàpp ne dooro bu continuer boole yuuxu dina jib fu ñu ko foogeewul man ne yuuxu ba muy jib fu ko foogeewul bu mu daanu moom kese déedéet na boole mafia bi boo ci nekkee nekk cartel dëggantaan. Mhm. bu ma buñ ma jàppee. <laughs> dama naan Pa Assane ci la bokk ni mu tuddee ah. président Macky Sall. <laughs> Pa Ousmane <laughs> ni mu tuddee président Macky Sall man loolu moom ma ci gën a jaax man xool problème milliards yeeg. Mhm. yooyu yëpp mais tey. Doora mooy kan ci dëkk bi. Mhm. ak lan la représente ci dëkk bi bay dem di am ay mission secrète yoo xam ne président de la république moo ko ko jox. xam nga lu muy niroo tey. ñu ne euh, euh, président Diomaye moo ma jox man xaalis wala moo am ay affaires yu mu séq ak man pour man ma def ay mission secrète maa man lan laa teg ci dëkk ba am ay mission secrète du ma lijjanti mission secrète yow laa bëgg waa section de recherche bu dee xaalis gi ñuy wax ñu <laughs> ngi te wooyu président Macky Sall fu mu nekk mu ñëw wuy si eh, ko fa <laughs> toog di séddoo xaalisu dëkk bi séddoo ay suuf ñun amuñu fu ñu dëkk ñun fi lañ juddoo màgg suñu ndey dëkk suñu baay dëkk fii eh, suuf aéroport bi nga xam ne léegi ñu ngi koy wax nga ma daaneel foofu ci ci li amoon ci li amoon fële melal ni yaa moom plateau. moom ma plateau bi. li amoon li amoon AIBD fan yi mooy. Euh, accident avion boobu. gis nga fu mu dal. tey bu fekkoon ne fii la amee ci ci aéroport bi musiba mooy am. Mhm. ndax fi nga xam ne foofu la waroon atterrir bu fekkee ne jafe-jafe am na. foofu yëpp dañ ko jël jaay ko effectivement. mais yow suuf aéroport bi xam nga ay nit ñoo ko moom dañoo war a wane liste boo xam ne liste complet la. Mhm. boo fa amee ñu ne kii am na fa lii kii am na fa parce que ko jël caxat caxatee ko jaay ko mhm. ñoom oto yu rafet nga gis ñuy dawal seen jabar yi ñu takk di leen kii yow ñu ko dañoo sàcc xaalis askan wi léegi nag li ni nañ ko delloo si ci askan wi li ñuy wax ay ceeb yokk yokkuwul mais nañ ko ci gën a dugal comme ça yi fi dem ma ne ngoone billaahi réew mi lu ñu def lu ñu def c'est des délinquants lu dul dañoo mobiliser wu pour ñu uh-huh. teggi fii waa d'amnistie bi <laughs> wallaahi defuñu dara loi d'amnistie bi da nga yaakaar ni day raxasaale loolu yëpp bokk gis nga xawma dialogue bi sur la justice ku taxoon rek ni mhm. pour marquer rek l'événement mhm. ne on a on est contre la loi d'amnistie nañu jox délai bu ñuy liggéey pour lu ko yëkkati mhm. ndax dinga nga jot ay xeetu information yoo xam ni dalay da wér ak ay preuve mu wóor la ni bakkan yi ci rot ak ñi tudd ne seen loxo laale <laughs> am ñuy wax ay suuf ak am na solo de délinquant financier yeeg mel noonu mais li ñu fi boom ci ay doomu aadama dama ne nguur gi ñi nga xamante ni démb ak barki démb ñoo doon sàkku à ñu def la lumière sur tout ce qui s'est passé durant ces trois ou quatre dernière années laa wax dañu war a mobiliser wu. boole kook ñi jàpp ni li am Sénégal depuis deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre warta mën a am taxaw chaque jour insister mettre la pression di def ay mobilisation pour que ñu yëkkati loi d'amnistie bi pour que ñu xam qui est qui qui a fait quoi gis nga fi ak defuñu loolu ñuy mel ni comme si on fait la sourde oreille ci bañ ñu xam lan moo xewoon démb ak barki démb. wallaahi waxuñu dëgg jëfuñu dëgg te nekkuñu ci lu ñu yóbbu dëgg réew mi Sénégal laa wax ci juróomi at yu njëm jëm lu ñu mën a def te lijjantiwuñu nu ñu yëkkatee loi d'amnistie bi te lijjanti réew mi lan moo fi xewoon depuis boobaak léegi ay mission secrète hmm. ay ku ñu jox ay ndombal euh, maanaam koo xamante ni yaa ngi koy gis ci ci ci ci au cœur de l'état te mënoo xam liggéeyam lan laak merci beaucoup ñoo xam daa am lu ñu mbubboo woon fekk na am na leneen lu ñuy liggéey ay armes yoo xamante ni ñu ne fii dugal nañ ko ci réew mi on part de quarante cinq milliards xamuñu armes yooyu noonu finalement nan ñoo ko téye ban usage lañ ci def gis nga loolu fii ak leeru laa wax te kilifa yi dañ cee am intérêt ñi nga xam te ñoo ŋànk Pastef au plus haut niveau laa wax de dañ leen war a dégg ñu kaas ni comme ni ñu waxee woon ni voté wuñu ko woon. taxaw ca assemblée nationale ne ñoom voté wuñ ko lijjanti wuñ ko seen yoon neewu ci dañoo war a conséquent ak seen position boobu noonu lu ñu wax ci réew mi ñoom dañoo war a njëkk a tudd loi d'amnistie bi dafa war a tëb. Mm-hmm. parce que loolu dina am lu bëri lu mu lijjanti. Mm-hmm. yaa ngi wax sànq ne war ñu koon bàyyi mu dem ndax jomaay mënoon koo téye loolooy laaj bi. waaw bu fekkee bu fekkee mënu ko téye. c'est-à-dire war na mën a am ay pexe yoo xam ne war ah, na la wax pexe ko mooy ne kon daggoo cordon obligatoire ndax pexe yooyu day dellu ci justice ndax justice mooy ordonné pour ñu jàpp nit. soo defee pexe rek dañ naan waaw yaa nga ca loolu moo tax ma ni dafa am lu fondamental te pour man foofu la ñuy xaaree ñi nga xamante ni yëpp démb ak barki démb dañoo nangu ni réew mi dañoo tooñ ay gor dañoo faat ay innocent dañoo dañoo dañoo yu dul jeex. Mhm. c'est l'occasion rêvée balaa ñoo dem fenn. ñu mhm. yëkkati loi d'amnistie bi. il parce que gis nga loi si boobu moo ñuy may ñun yi ñuy dégg di ko jot parce que mënoo tamit euh, dégg jot enquête firndewul mm-hmm. nga confirmer ni diw moo def wala deful waaye am na ci ay xeetu information boo ko toppee dangay gis ni day recoupé wu mm-hmm. mais enquête ñu jaarale ko ci tribunaux yi ñu àtte ba juge ba tàpp ci taabal ji ne yaa def wala defoo mhm. mooy mën a may nag après ñu mën a apprécier moo tax gis nga foofu la ngoone waxee nee bu mu daanu moom donc bu ñu paree ci 1,2 milliard ma ne loolooy wax dëgg yàlla war nañoo mën a taxawit ci mission secrète bi lan la woon mais nag seen train de vie sax ñii ku xool seen train de vie sax xam ne attanuñu ko kon am na lu ci lu ci wax président de la république wala l'ancien président a Euh, moom ñu koy dugal ci waaw euh, ci waxu suuf ndax gis nañ ni ci régime précédent yi nga xam ne ñoo fi jot am président bu ñëw rek euh, bu ko neexee mu mu mu defar ay ay ay ay ay milliardaire wala ay millionnaire mhm. ci nan naka une personne qui n'est partie peut-être de rien nga xëy suba rek il se retrouve avec waaw léegi moom wax des millions loo wax léegi ci ci sa wax da nga ne ci enquêteurs yi nee na mën na génne cent millions léegi man enquêteurs xam nga lu leen di wax 500 millions dama nga andi ko nga téye ba pare mhm. soo ko téye ma téyewaat la <laughs> non la na génne 500 millions yi rek fekkee ñëwoon dëkk bi ñu nuyu la joxe leen 500 millions yi bravo hmm. non man fan naa ko mosuma dindi je l'adore cette fille dëkk bi li ci nekk yi boo koy wax bu yàggee sax yow danga wax ba golo génn sa gémmiñ dëkk boo xam chaque jour na jàpp nañ foo biyee mhm. dëkk boo xam ñu ne chaque jour drogue dug drogue bi dugg na yaa ngi wax sànq pas seulement chaque jour wax ko dañoo war a xam ne ñoo koy dugal mhm. dañoo war